wasalaatu wasalaamu ala xaatimi rusul wal anbiya mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar képp ki nga xamante ni yaa ngi suivre seen site internet bi di 24actu comme ni ñu ko baaxoo doon defee ak yéen rek ci seen émission gëstu diine ji gëstu diine ji nag tey euh, nekk loo xamante ni lu am am solo la ñuy waxtaan ak yéen ci thème bu am solo balaa loolu nag ñu présenté leen suñu gan gi nekk Serigne Bassirou Fall Alxuraan di yëngu tamit ci gëstu wàllu sëñ bi ak lépp loo xamante ni fànn bu ñu mel la suñu thème tey nag nekk préparation koor gi naka la ñuy waajalee koor waajtaayu koor gi. ci jëf yi ci jikko yi ci doxalin yi ak comportement yi loolu moom lañu leen fas yéene waxtaanal tey jii te war koo seq nag ak suñu gan gi di Serigne Bassirou Fall alxuraan Serigne Bass maa ngi lay nuyu. بعد أعوذ بالله الشميع العليم من شر الشيطان الرجيم رب اشرح لي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من yi ginnaaw bu ñu santee suñu borom subhanahu wa julli ci ndaw li Moustapha al Karim xayral xalqi xayral wara xayral bashar comme ni ñu ko sunu borom subhanahu wa taala digalee ci alquran inna allaha wa malaikatahu yusallun ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu di sant sunu sëriñ ba cheikhuna xaadimu rasul radiallahu anhu di ñaan sunu borom fay nañu ko nga ñu fay di ñaanal sunu sëriñ ba sunu wasila cheikhuna cheikh Ibra Fati Mbacké borom daaru moxti sunu borom doolu yërmandeem ci firdawsi mbokk mi eh, ginnaaw ñi ngi seetaan ci seen émission bi di gëstu diine mhm. euh, fii ci 24 actu mhm. euh, jàkkaarloog sunu mbokk mi soxna su mhm. lay jaare di la beral euh, ak nuyoo di la jaajëf bu baax a baax ci taxawaay bi ñaan sunu borom yokk ko lool ba nga am ci <coughs> lu faaw sa njort barke alxuraan ñu ngi fay bu baax a baax ñëpp ñu ñuy teewlu di ñu bàyyi xel Euh, jërëjëf sëñ Bassirou Fall Alxuraan ci nuyoo bu am solo boobu tey nag ñu duggaat dugg ci thème bu baax a baax mooy muy waajtaayu koor bi ku ne xam na ne sëxu Ramadan moom mën nañ ne buñ ko waxee rek xel yëpp dem ci li nga xamante ne moo di weeru koor euh, kon nag war nañoo defaraat jikko yi war nañoo defaraat comportement yi war nañoo changé waat donte sax di nga gis ñoo xamante ni euh, am na yenn genre jikko bu baax sax am nañ ko mais dañuy def le tout pour gën koy yokk nan lañ war a waajalee koor gi nga xamante ni moom lañ tëdd waaw jërëjëf comme ni mu ko waxee. Mm-hmm. ñu ngi dëgmal shahru ramadan te day weeru sell weeru tedd weeru woo xam ne yàllaa ko barkeel. Mm-hmm. Euh, yaa ayyuha llazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala llazina min qablikum laallakum tattaquun. Mm-hmm. alxuraan moo ko wàccee mu nekk farata ci biir ponk yi euh, juróom yi nga xamante ni yàlla moo ñu ko waraloon pour ñu ñu koy def. ramadan nag bu ñu ko waxee. Euh, la nga ca war a doleeku mooy ak ragal yàlla gu sëkk wante itam euh, nga jéem a seet ci ci bàkkaar kon gan googu buy ñëw lenn li nga ko war a teer nga ko war a teeroo muy euh, seddalaat jëfin yi raxasaat xol yi dëgg ma laat yàlla sunu borom subhanahu wa hmm. ba koor gi buy ñëw du la fekk nga mel nenn ni da nga seet wecc ci bàkkaar hmm. dëgg ma sunu borom subhanahu wa hmm. di moytu bu baax a baax yenn pooy yàlla sax dañu koy tere wante euh, bul def mukk ba weeru koor bi di la ca fekk ndaxte koor suñu boroom da koo fonk ba ne maa koy fay sama bopp. Mhm. kon lépp luñ ciy def rek euh, dañ ko dañ ko waaj bu baax a baax ci ragal yàlla ci dëgg ci dëgmal suñu boroom subhaanahu wa taala mhm. ci bàyyi tere yi suñu kem kattan euh, lépp loo xamante ni suñu boroom bëgg ko mhm. ñu moytu ko bu baax a baax a baax te moytuwaat yëpp yëpp yoo xamante ni dañ koy teree muy mbiram euh, caaxaan. Mm-hmm. Euh, dagalul ci wenn wenn wenn weer. Mm-hmm. rawatina cheikh ramadan al mubarak mm-hmm. weer bi nga xam ne dafa barkeel. Euh, tedd lool. yàlla wàcc ci li nga xam ne moom la gën a fonk ci kaw suuf. muy cheikh ramadan allazi unzila fiihi al-quran. weeru koor wi nga xam ne alxuraan la ci wàcc. ñu war koo màggal nan lañ koy préparé yeesalaat xool yi dëgg ma daal suñu borom subhanahu wa taala delluwaat ci alxuraan karim dégg delluwaat ci njàngaleem suñu borom subhanahu wa bëggante suñu biir yéenante jàmm euh, booloo wax waxtasimu bi am jamian wala tafaraxu euh, comme ni ñu ko suñu borom waxee ñu di dimbalante lépp loo yéene sa mbokk sa bopp nga sa mbokkum jullit te xam ne nit nit mooy mbokkam rawatina sa mbokkum jullit lépp loo mën ci dimbale ko nga def ko te yàlla rek tax euh, loolu daal bu ko defee koor gi bu ñëwee danañ ci am lu fooxa suñu jot danañ ci am ak ndimbal suñu borom subhanahu wa taala Euh, jërëjëf euh, sëñ Bassirou Fall Alxuraan ci leeral yu am solo yooyu mais comme ñu dikkaat bu baax ci aaya bi nga wax wax sànq yaa ayyuhal lazina aamanu kutiba alaykum siyaam kamaa kutiba alal lazina min qablikum la'allakum boobu muy ragal yàlla boobu est que nit ñi dëgg dëgg dëgg dëgg ñu koy utiliser woo ci ci dëgg dëgg buñ duggee ci biir koor gi ndax da gis ñoo xamante ni am nañ relation ak koo xamante ni kat euh, am nañ fuñ jaar nga xamante nii jotoon nañoo jote dara est kat ñoom ñu raxas xol yi fas yéenee am yenn relation yu baax yi fas yéenee juboo balaa weeru koor bi di ñëw mais da nga gis tamit ñoo xamante ni mën nañ ko def nii de mais bu ñu duggee ba si biir koor ga dañuy mel daan nekkatuñ ci weeru koor ñun tamit euh, lan nga xamante ni moom nga am ci looy wax pour gën koo leen ko soññaat bu baax a baax waaw jërëjëf soxna su comme ni nga ko waxee mm-hmm. weeru koor dafa nekk loo xam ne dafa la war a dolli ci ragal yàlla mm-hmm. lépp loo ëmbaloon sa mbokk ci negas-negas war na weeru koor bu teroo nga dem seeti ko baale di ko àq baale di ko àq fas yéene li des ci seen dund du ngeen am lenn benn benn gàllankoor ci ci réeroo ndaxte ragal yàlla bu ñu ko waxee. dugguma la foofu sax balaa ngay euh, jàll mais man nga mën naa ne sax jamono ji léegi avancé boo xamante ne nit ki mën nga koo bëgg a seeti doo ko mën di mais téléphone yi yomb na yomb boo xamante ne nit ki mën nga ko envoyé message wala yu mel noonu. Mm. surtout jum jumtukaay léegi WhatsApp baa ngi fi. Mm. Euh, yu bëree bëri mën ngaa toog fi nga toog nemmeeku sa mbokk. ba mm. xolom sedd xolom dellu si. Euh, ta ta jëru ngay sol sol sa dàll di ko seeti. Mm-hmm. comme ni ko waxee ñuy ñu bokkaat lu ñu bëgg nit ki boo ko gëj a dégg rek mën nga ko woo baalu ko àq nemmeeku ko mm-hmm. loolu rek xolam da ciy sedd lool lool lool lool mm-hmm. waxuma nag weer wi nga xam ne dëgmal nañ ko di weer woo xamante ni weeru sell la weeru tedd la yàlla barkeel ko euh, benn boo ci def rek mu fay la ko fukk ba dolli la ci leneen ak leneen kon yaakaar naa lépp loo doon def lu baax rek war nga ko yokk sa mbokkum ngeen bokk yàlla sunu borom subhanahu wa taala wala di ko bokkaat alxuraan bokkaat Seydina Muhammadin alayhi salaatu alayhi salaatu alayhi salaatu wa salaam moom mi nga xam ne mënuñu koo séddoo. kon yaakaar naa waruñoo waruñoo réeroo ci benn côté ñun ñi nga xam ne ñoo bokk yàlla sunu borom subhanahu wa taala nañu delluwaat ragal yàlla sa mbokkum jullit yoon l'islam dalay dalay tere nga mel ko lu toll lu weesu ñetti fan rawatina bu ngi duggee ci weeru koor na ngeen séq jàmm tey baalante ak tey dimbalante. koo tane li wacillaahi nga dimbale ko sa kem kattan mm-hmm. te bul toog fenn di wax naan diw moo ko defal diw la ma ko defal lépp loo ko defal rek na yàlla rek tax mm-hmm. na sunu borom subhaanahu wa taala rek tax mm-hmm. moom mi nga xam ne moo ne laa taaxusuhu sinnatun wala nawmun kenn ku nekk li nga def moo ngi ko gis te fa man ya'mal misqaala sarratin xayran yara wa man ya'mal misqaala sarratin sarran yara kenn ku nekk li nga def dana la ko fay bu dee benn benn la du ca dolli dara du ca wàññi dara lu mën di doon rek ala kulli ngay am mais tamit ñu dikkaat bu baax a baax ci côté comportement bi côté solin bi da nga gis ñoo xamante ni mën nañ ne dañ daan sol lu leen neex mais bu ñu xoolee ko weeru koor bi xam ne dënnu mën nañ ko rek dañuy changé li nga xamante ni moom lañ doon sol bu weeru koor bi jaalaatee ñu nekkaat te am si ñoo xamante ni sax mën nañ ne loolu du leen ci fekk ñoom daal weeru koor ak bañ a weeru koor sax lañ yemale ñoom daal li ñuy sol moom bu weeru koor ñëwul ak bu ñëwee yépp moom lañ yemale. waa dëgg la euh, comme ni nga ko waxee. Mm-hmm. ab jullit dafa war sol yëre yëre jullit yére yoo xam ne képp ku dana xam ne kii de ab jullit la kii de ab xolom xolom bi yàlla suñu borom subhanahu wa taala rek moo ci nekk ndaxte yàlla day wax ci alxuraan mu ne yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudniina alayhinna min jalaabibihinna min na daalika adnaa an yu'rafna falaa yuzayna wa kaana llaahu ghafuuran rahiimaa day digal suñu mbokk mbokk jullit yi ñuy sol yére yu jot yu yiw yu sell loo xam ne bu kilifa ne woon tëll tey doo am loo ciy sensé wala nga koy wala nga koy soppi rawatina mbokki soxna yi koor gi bu jubsee war a ngay xoolaat yëre yu baax yi ngay sol dañoo koy tere ci budul koor rawatina bi nga xamante ni dugg nañ ci weeru sell wi say euh, soo yaram bu ko bàyyi ci biti del sol yére yu jot yu yiw yére yoo xam ne képp ku la fekk nga toog rek dina xam ne yow mi ab jullit nga ndaxte ab jullit euh, damay dégg Serigne Sambay radiyallahu anhu di ko wax lu bëri nee na ab jullit euh, ñu ngi koy xamee ci sol yére yu yiw yére yu sell ba képp ku la gis rek dana xam ne yow mii ab jullit nga mm. waaye yenn yére yoo xamante ni mm. du la ci gis ba naw la yenn yére yoo xam ne mënut a julli mm. mënut a jàng alxuraan yooyu moom nañ koy moytu bu baax a baax mbokki jullit ñi nañ koy moytu bu baax a baax suñu kem kàttan mais tamit euh, dañu gis ne danga danga am yenn doomu aadama yoo xamante ne ñoom daal seen jikko doona lu jël ñaari doomu aadama jaxase leen di leen féewale ñooñu nan lañu war a changé surtout jumtukaay yu xarala yi nga xamante ne moo xew léegi lu mel WhatsApp yi sa mbokk boo xamante ne kii kat bëgg nga mu meroo ak kii nga jël audio transféré ko loolu yëpp nekk si yenn xeetu jikko yoo xamante ni war nañ ko mën di gën a changé balaa koor gi di ñëw loolu tamit mu nekk loo xamante ni war nañ cee def taxaw seen bu baax a baax nit ku nekk rek war nga xool li nga xamante ni mooy def mooy defar euh, sa digga diggante nit ak moroomu nitam mm-hmm. ci lu baax nga yokk ko waaye waxuñu la ngay féewale ay nit yàlla bëgg ko yonent bi bëgg ko suñu sëriñ ba Seyxuna Xaadim Rasul bëggu ko ndax te mas naa nekk ca njaarim daal di tomb ñeenti tomb muy ja ji ju ja daan nekk jaay jooy jeex jahannama ku jaay sa adduna dina jeex ku sa adduna jeex nga jooy ku jooy jahannamaay sa kër nit ku nekk war nay xam li boole jullit ak mokkam mu di ko def nit ku nekk war nay xool nit kii kat ba xam mokkee lan lañ séq fekkee séquñu séquñu jàmm euh, mu fexe dox ay tànk jàmm ba seen diggante ratax kooku de bu ko defee ala kulli la ko ci yàlla fay moom suñu borom rek moo xam na pay nga toll kon yaakaar naa ñuy bàyyi xel suñu biir ñuy dimbalante ndaxte nit jullit amul lu dul mbokkam jullitam ñu defar suñu diggante bu baax a baax ndax yàlla suñu borom dolli ci ñun yërmande Euh, jërëjëf euh, sëriñ Bassi Fall alxuraan ci leeral tamit yu am solo yooyu mais tamit ñu dëkkaat bu baax ci maanaam xol yi nga xamante ni war nañ ko raxasaat bu baax a baax ci côté euh, mën nañ ne sax boo boo génnee si mbedd yi sax nga gën a sentir lu mel noonu muy ñi nga xamante ne mën nañ ci côté garam place yi ci côté marché yi nga xamante ne mooy safóor yi rawatina emprunté yi ñu ngi jégalu baax tamit ci ñi ñu ko war a wax nga am na ñoo xamante ne boo leen tuddee rek ci li nga xamante ne moo di koor gi dañuy dem ba sentir koor gi métti métti boo xamante dañu jàpp ne sax yow yow sa diggante yow ak doomu aadama bi yow sax yaa teg koor gi wala métti koor gi ak tàngaay bi yëpp yaa ko teg du xool na lii que suñu borom subhanahu wa taala moo ko sant pour mu def ko mais moom ko métti ci xiif rek ci moom daal xuloo ak xeex loolu moom la ko war a fajee te loolu tamit nekk luy war a changé bu baax surtout jamono ji loolu dañ koy faral di gis bu baax baax ci weeru koor gi euh, bis boo boo wooree na nga na nga jàpp ne koor gii nga nga woor suñu borom subhanahu wa taala moo ko teg du benn mbindeef du kenn ku la woorloo ndaxte yàlla moo la ko teg te moom moo lay fay kon nga la waaye boo wooree nit lu mu la mën def rek na ko jéggal te yàlla tax donc ne dana tooñ na nga ko jéggal waxuma laa ba nga xamante ne tooñ la ñuy moytu bu baax a baax a baax di xu ci ci ci di xuloo ci weeru koor ndaxte yàlla suñu borom bëgg ko bi heure boo wooree rek euh, nekkal ci loo xamante ni dalay delloo ci yàlla boo wéetee na nga yor alxuraan di jàng boo wéetali ko na nga jàng alxuraan foo mën di nekk rek nanga sëgg ci téere bi yàlla bi téere bi nga xamante ni comme ni ñu ko waxee ci biir weeru koor gii la wàcc kon fépp foo mën di nekk rek bu sa xel dell nekkee ci yàlla rek mm-hmm. lu la waaye def rek ala kulli da nga ko jéggal mm-hmm. te xam ne àdduna mu solo ñun ñëpp ñoo bokk lu ñu bëgg bokk lu ñu bari kon ngelawaay bu ñu duggee ci weeru koor gi nañuy jéggale te yàlla tax koor gii ñuy koor suñu borom moo ñuy ko teg mm-hmm. du kenn kenn ku dul suñu borom subhanahu wa ak lu si mel ni côté grand place yi nga xamante ni tey jii ñoom dañuy xamante ne ñor na xamante ni amuñu métier amuñu xëy amuñu gont ñoom daal xëy rek daje si grand place yi lu leen neex wax lu ni mën nañ ne doy doy waar la jërëjëf soxna comme ni mu woon li ko waxee rek hmm. boo wooree da ngay jotaay yi nga xamante ni doo fa dollikoo ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala hmm. doo ci dollikoo ci sa diine doo ci dolli dara dara lu dul ay caaxaan rek mm-hmm. Sëriñ Tuubaa dañu koy teree wajtani bu ma jali sa saqawa mm-hmm. jotaay yooyu xam ne seytaane moo koy moo koy créé mm-hmm. nga xam ne duñ ca dolli waxtaane dara loo xamante ni du la dolli suñu borom subhaanahu wa taala te loolu kat ab jullit war na koy daw boo wooree nga la waay xool bëri bi nga xamante ni da nga fa am yàlla suñu borom subhaanahu wa taala da ca dolli ko ci ci sa wàllu diine da ca dolli ko lu bëree bëri bëri ci sa dund loo xam ne dina la mën a defar bu koor gi jàllee bis boo ci jàppee rek danga nga mën a jag ba illee yow mi diin du too yàqu mm-hmm. uh, jërëjëf sëriñ Bassirou Fall ci leeral yu am solo yooyu kon daal bu ñu déggee say kàddu mel na ni nit ñi war nañu gën a mën a waajalaat koor gi bu baax a baax a baax ci côté solin yi côté jëfin yi côté ñi nga xamante ni loolu la ñuy séqee ak seen moroomu doomu aada yi ba tey tamit ñu dikkaat ci biir kër yi ndaxte mën nga ne balaa euh, olof dafay faral di wax ba nañ ne est-ce que waruñu gën a jiital tamit ci biir kër gi kër gi nga xamante ni fi nga yeewoo nga njëkk fee raxasee sa xol njëkk fee euh, ñi nga xamante ni ñoom nga séqal kër gi tamit leen loo xamante ni mën nañ ne kat boo ko génnee a am problème ak kenn mais bu fekkee da euh, lu neex def lu neex wax di turbale nit ñi tamit boo génnee nan ngay doxalee ci mbedd bi waaw jërëjëf soxna su comme ni nga waxee nit ku moom ni mel ci këram rek noonu lay mel ci mbedd mi munoo baax ci kër gi bon ci mbedd mi wala nga bon ci kër gi baax ci mbedd mi noonu munu nekk euh, ci sa biir kër ngay ngay tàmbalee li nga li nga xam ne boo ko defee ci mbedd mi kenn du la euh, ci yaraanga kenn du la ca euh, doo ca doyat yi boo nekk ci sa biir kër ni nga xam ne yàlla suñu borom moo leen moo leen boole biir kër gi ngeen séq jàmm bu ngeen xëyee ngeen di nemmi ko heure boo xëyee fekkil sa mbokkam jullit ci néegam nga nuyu ko laaj ko nan la fanaanee ngeen séq jàmm euh, boo ko gisul nga nemmiku ko bu fanaanu nga xam ne fanaanu bi ngeen séq jàmm loolu bokk na ci liy rafetal ab diggante te euh, dañuy faral di wax naan bu ñu nit baax nañ naan mbokk yaa ko wax euh, te say mbokk kenn jiituwu ci ci ñu dul ñi ngay yeewandool ñi ngay yeewandool ñoo ñoo la mën a wax kii ban genre nit la ban genre nit nit la mel kon ñi ngay séqal ñi ngay ñi ngay séqi moom julli wax nañ ne bu nit ki bu duggee ci biir bàmmeelam julli la ñuy njëkk a xool ay julli mba xam mat na wala matul bu matee li ci des kenn du ko xool leneen li ci des kenn du ko xool kon yaakaar naa saa yoo xëyee rek euh, farata yi nga xamante ni suñu borom digal na ko ci biir euh, bés bi ci journée bi muy juróom waxtu yi nga xam ne euh, warlu na sa diggal sa borom nga matale ko ba mu sëkk sëkk sëkk yaakaar naa yàqulu la dara dara dara ci ci sa ci sa dund lépp loo def rek bàyyi ko nga dem julli ji loo nekk rek lu mën di doon lu mën di doon rek yàlla suñu borom moo gën a faw sax nga dem jox ko li mu moom subhaanahu wa taala waaw kon ñu ñëw ci nga xamante ne mën nañu mooy euh, euh, nañ ne ñooy say euh, dëkkandoo ak ku mënti doon rek koo xamante ni yow am ngaa moom relation te leer na la kii yaa xaw a tane parce que jàppoon ne tamit ñooñu war nañ a gën a mën a jàppale comme par exemple yow ak kii sa dëkkandoo la wala kii kat xam nga ko mais so soriante ngeen ay kër nga xam ne kat moom dooleem yemul fenn fii fekkente ne sax mën nga ne jour koor bu bi jot rek chaque jour mën naa ko war war li nga xamante ne mooy benn doomu tàndama ngir mu dogee ko sax jàppale ko ñu jàppale tamit est-ce que nekku nit ñi war nañ cee gën a préparer seen bopp parce que weer ko jotee ko képp koo xamante ne lenn la a jàppale bu baax waaw jërëjëf euh, soxna nit ki war nay jàppale mbokkam rawatina sa dëkkandoo mm-hmm. euh, yonent bi da wax ci dëkkandoo di ci wax di ci wax ba yaakaar ne bi boo boo fi jógee rek dëkkandoo dëkkandoo yi dañuy donn mm-hmm. euh, seq leen jàmm mm-hmm. ngay dimbale say dëkkandoo ndaxte lu rafet loolu ngay def rek yàlla dina la ko delloo ndaxte alxuraan ne ne euh, nekk lu am solo di nemmeeku say dëkkandoo lépp loo leen tànnee rek nga dimbalee la ko nga di nga nga leen di dimbale ci lu ne muy wàllam lekk waxee da ngay jël benn tàndar mooy jox leen ñu dogal ko xeeb ndaxte dëkkandoo day lu foor la dara dalee balaa say mbokk egsi say dëkk say dëkkandoo ñoo fay jiitu ak lu mu doon boo xewlee ñoom ngay gis kon deel rafetal jëme ci ñoom. boo xoolee sax doo dogguma la foofu mais parfois da ngay gis koñ yenn association yi wala yenn daayira yi ñoom dañuy préparer seen bopp ci dajale ay xaalis pour bu koor gi jotee ñu xool loo xamante ni que chaque jour dinañ mën di koy def di jox nit solo lu am solo la ñu ku koy def rek ko bu baax a baax a baax te xam ne fay gi suñu borom di kenn xamul lu mu mm-hmm. loolu day lu am solo ñuy dimbalante ci suñ ci suñ biir mm-hmm. ñu ñoo bokk lépp lépp lépp ñoo bokk donc ne bokkuñu nit koo bokkul tarixa sax mënoo xa euh, mënoo réer ak moom ndax yéen ne bokk yàlla suñu borom. Mm-hmm. wëlbul ko bokkaat alxuraan bokkaat yonent bi. Mm-hmm. lii rek dafa doy kooku bokkal rek yéen a bokk lépp lépp mi ngi mel ni yéen a bokk ndey ak baay. képp koo gis si mbedd mi jàppee ko ki nga bokkal nday ay ak baay bët bi ngay xool say mag wala say rak dee ko xoola ñooñu bu ko defee rek euh, ala kulli alim yàlla suñu borom dana dolli ci ñun yërmande bu baax a baax a baax. jërëjëf kon euh, sëñ Bassi Fall Alxuraan sa kàddu yu mujj ak lan ngay dénk ñi nga xamante ni ñoo lay seetaan rawatina comme ni ñu ko waxee woon sànq rek waajtaay koor bi nan lañ gën a may defaraate jikko yi tamit lan euh, di santaat yàlla suñu borom subhaanahu baax a baax yàlla mi nga xam ne moo ñu kàttanal moom mi nga xam ne ku dul yàlla du yàlla moom rek mooy yàlla te mooy def lu ko soob di def lu ko neex moom mi nga xam ne kàttanal nañu bañ dëkk malaat koor gii ñu jublu mm-hmm. ñuy ñaan suñu borom mu doole ñu defal tawféex bañ dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin lépp lu ñu ci woor rek mu daal di koy nangul te jéggal ñu bu baax a baax a baax suñuy rëcci rëcci moom mi nga xam ne mooy borom fépp ak ñëpp di sant yàlla bu baax a baax a baax di e, bàyyiloo xel képp koo xam ne mi ngi ñu bàyyi xel e, émission bi mu xam ne yàlla suñu borom moo ñu digal koor nañ ci def suñu kem kàttan lépp lu luñ ci mën rek nañ ko nañ ko ci def ci jaamu yàlla di leen def bu baax a baax ci émission bi nga xam ne yéen ngi koy def di leen jaajëf bu baax a baax ci taxawaay bu am solo bi e, gëstu diine di yaatal diine bokk na ci mission yi nga xam ne moom la fi yonent bi doon dox ba mu fa jógee nag Serigne Touba suñu yaakaar ja ñëwaat euh, daal di daal di daal di koy yeesal daal ne woon lil Moustapha nawaytuma yujaddidu sunnatahu xarra wa inni ahmadu kon yaakaar naa lii lu am solo la ñaan suñu borom kàttanal leen euh, ba lépp lu ngeen ci wut rek ngeen am ci lu faw ko seen jot barkeb alxuraanu karim bi jaajëfal ñëpp Ah, jërëjëf euh, Serigne Bassirou Fall euh, alxuraan mu nekkoon suñu ganu tey ci seen émission gëstu diina ji tey nag ñu doon waxtaanee li nga xamante ni moo nekk thème bi lan euh, waajtaayu koor nan lañu war a waajalee koor moo xam ci jikko yi moo xam ci comportement yi nan lañ war a doxalee nan lañ war a comporté woo ak dëkkandoo yi ba si ñi nga xamante ni sa ñoom ngay rombante ci mbedd mi ndax ñi wax naan inna diina indallahi islam islam ñi ñëpp ñi ñoo ko bokk amul tariixa Euh, xaadiriya amul amul tiijaan amul laayin amul rek murid laa nekk ak ku mënti doon rek war ngaa mën a waajal sa bopp ba képp koo xamante ne moom nga gis tasal moom si mbedd bi ak ñi nga bokkal kër ñi nga bokkal koñ ñëpp ni mën nañ ne sax bu fekkente ne yow sax loolu ñuy wax ci alxuraan li aaya bi ñu indi woon sànq mu yaa ayyuhal lazina aamanu ko a jëfee sa dina dem mën a continuer mën naa mën nañ ne sax am na yenn jikko yu baax yoo xamante bu fekkee dëggu na ci sa xol mën nga cee dem sax bu ko jàllee mën na ko des ci yow mais fekkee nag da nga koy boole li nga xamante ne mooy li ñuy wax ngistal donte dañuy wax ne say saytaane dañ koy jéng tamit waaye tamit war na maanaam nit ñi gën cee defarwaat bu baax a baax moo xam ci jikko yi la moo xam ci doxalin yi moo xam ci jëfin yi la loolu yëpp ñu war koo defaraat ngir wàcc waxtaay li nga xamante ne moo di sëfu ramadaan bi nga xamante ni moom lañ dëgmal ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm Serigne Bassirou di la sant bu baax tamit ci yombalal bi nga xamante ne yombalal nga ñu ko invitation bi euh, di leen fàttali bu baax ne leen seen gëstu diine ji ci ngeen nekk ci seen site internet bi di 24 nga xamante ne ñoo jàpp ci liggéey bi a yemb ku ci mel ne Cheikhouna Ndiaye El Hadj Ousseynou Ndiaye Serigne Salihu ak Khady Ndiaye mi nga xamante ni mooy jàpp ci montage bi ba mu yemb di leen sant bu baax di leen gërëm di di daje ci yeneen jotaay ci seen émission gëstu diine ji wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu برب قهار قادر ma